bi itam satub sëy naar jën te mam maam mate ko waaye ñu mate ko ñoom it seen maam fa leen ñu fàggule seen waay jur sëriñ Mbàkke mi ñëw tey ha am lo xay du neex a wax ci biir yu mel nii ndax yu tànk yi waaye li ko boole ci kër gi nekk ndigal lo xam ne lii kenn mënta bañ am lu bax ndax ndigal lolu ñu ko xam bari ndax suba ba léegi ñoo ngi ci waxtaan maag man ñi ma toogaleen fii waye dal li wér te moy señ sëñ mi doomi digal la ko fi indi ndigala ko ci boole té lolu itam way juróom séré nako ko keroog bi nga xamanteni ni way juróomu jigen nelaw na la señ nar bëgg na wax lépp wax nako ñepp dégg nañ man moko laaj dina la ko wax lolu nak ay yef la du neexa duggal ci biir waaye li daal mooy moom mi ci mag ñi la bokk ndax maga ko meññ këram ko gërëm way juróom am na ngërëmu baay man xam naa ci dara si fànn yëpp nag nit ku am ngor la nit ku am coloré nit ku baax la ku bëgg lu baax la kuy def lu baax la yàlla da ko boolee ñëpp nag ku ko ko yàlla dogal nga nga jaxasoo moom rek da ngay wuti ñoo ci doli way yow doo bëgg bayyi jaxaso ak sëñ Mbàkke jën ñoo ngi koy ñaanal yalla yagal ko fi nak ba mu doon sëñ nar jën man yene jooju la am ñi fi nekk ñepp yalla nako yalla defal yalla ko ci kafa fi nekkal tay sëñ nar jën mi sëñ Sidi ak seen rak yépp ak ñi ko mak ak ñi mu mak waaye yéeneem yaatu ak bëggam yaatu ndax ñun bañ démb ba léegi man naa ni sax barke démb ñi basé bas ba ni nit ñi ñu fi comme ni ko sëñ bi waxe léegi kilifa yëpp ñoo nañ naa ci kilifa yaay ay xalifa lañ ci kër sëñ Touba waaye ñoo ngi toog ñuy woote na na fa ñëpp dem am na ci ñu ngeen fekk ci kaw ñooñu ñëw ñu mujjee ñëw nii léegi ca sëñ Cheikh lañ jógee moom sëriñ Abdou Khadir ñu ngeen fekkante nii baat njabootu sëñ Cheikh sëñ Abdou Khadir lañ ay doom lañ gis defante ak ñoom ñu jóg dem fecc sëñ Jili sëñ Jili ma doon woon nii léegi mooy seen mag ñoom ñii sëñ Jili moo nekk ca kër gi xam naa buñ cee sax ngeen yegg fa wala ñaan ngeen yegg fa moom mooy taawu sëñ Mbàkke ñoom ñii si la ñuy waaye sëñ Mbàkke mu ne su koo fay waaye maam maam Cheikh Sadio Dieng nag kenn mënut a fay li mu liggéey sëñ Tuubaa ak ni mu ni sëñ Tuubaa jumaa ji jenn la sant waaye jenn moom mooy jumaa ji ak ba ngay nekk njëriñ dañuy wax ni da ko daan dañ ko daan fekk ci sàkket naan ko di sëñ Tuubaa naan ko rikki bul fàtte Isa ay sàkket koy wax du nit ba tax mu indi njenne lagan borom njenne lëgën loolu lañ ko wax sëñ Baara Dieng ñëw nag man mi maa nga foon maa doon dawal suñ baari jën ginnaaw yàlla ci samay loxo la mujj bi ñuy liggéey bàq yëpp yi nga xam ne tey fu ñu demee àjjana fu ne maam Cheikh Sa lañ ko sax te buñ ko santee sëñ baari jën koy liggéey ba mu fi jógee sëñ naar jën koy liggéey ba jógee fi ba na nga ni muy jumaay njaareem ja di jumaay Touba ji di armeel yi liñ ci def ku ne gis na ko ba ca armeel yi nga xay nee ñu fa la ñuy demee àjjana mooy armeel yi jëkk lañ wax fa lañ daan denc waaye dañ daan def ku ñu fa denc maanaam jaar yi dañ koy sulli ak yu loolu moo tax ñu wéññi ko nag def armée yi tey yii ci biir dëkk bi kon bañ koy liggéeyaat wax nañ sëñ Bara jeen dafa war na dem ndax moom daanaka ci ko yàgg muy day dem ñu yuuxu mu ni demaguma dem leen di wax loo armée yooyu ki ñu ko bëgg a liggéey loolu suñ ko ko joxoon moom moom du fi nekk te sëñ Bara day dem ñu sëñ Abdoulaye Mbacke jox ko ko sëñ Abdoulaye da ko ni ko bu ma la soxlaa ñëw soo soxlaa ma ñëw loolu moom defe naa ni noppi taalibe yi mag yëpp dugg na ci ñoom li ko liggéeyloo barab bi gis ngeen ne barab ba nam mel waxon nañ ni ay at lañ doon wax way juroom ñetti wër yi ma ngi tuuti lañ ko liggéey man ngir yalla joy sax laa gisatul liggéey ci aduna ndax biñu liggéey barab bi man ma nañ yobu reer bi guddii da ngay gis 30 tonnes yi yo xamni ay ciment la so laaje ko ko joxe da nan sama bi daan borom neena bu kenn du daw tuuti noonu lañ daan liggéey motax liggéey ba gaaw kep ku yaakar sëñ Tuubaa ne ak sante wa mën sante ñew nga ci liggéey ba sumé ko nga japp nga ci liggéey ba maa doon dawal sëñ bi te gis na leen sëñ bari dama daan gis mu wax lo xamni li lii kenn musu ko ñime te loola tegal naa ci saa bët gisal naa ko déglu naa ko dégg naa ko nit ku mus a indi ci moom su wéradee sëñ Bara Diène bu musaan a téen ci asamaan si su téenee bay ba ngeen dem doxi seen soxla kooku du faat waaye su tibbee suuf jox la moom bay ba nga taaxal tuuti léegi nga dégg ñu tàggeeku yaar yii rek laa ci wax waaye li ma ci xam ci loolu ëpp na ko kon nag kooku bu fekkente ni ab sëtam tey moom la ñuy defal lii wax dëgg yàlla mbooloo mi ñëw fi ñëpp ku ñëw fi tudd Kajoor rek ñëpp ku fi ñëwul amul te fii yi nit ñi nii lañuy def dem ak a ñëw sëñ Mbàkke ko jinni ñi nag waaye itam way juróom bi sëñ naar jenn moo ko jiyeen nit ñi ba tey it maam Cheikh saa Jenn moo ko jiyeen sëñ Touba ànd ceeg sëñ Bamba tax sëñ naar sëñ Baara Jenn wax nañ ni moom ni ñuy def sax di fi dem ay at ak i weer ak lépp moom loolu fekk ko ci woon moom menn ngont rek la fa am ab ëkk lañ ko déjjiloo daal di ko yiwi mu dem kon kooku yoroon na bagage yoo xam ni bu fekkente du woon sëñ bi mën naa doon moom kon ca tund Kajoor la bàyyi ko fa la jóge moo sëñ Massamba Diop Samb ak maam Cheikh Fall ñetti yi nag ndax cin yi cin ñetti tànk koy téye waaye ñii de mënu may ñoo tee yoonu sëñ tuwaay waaye am nañ ci doole de ndax lépp lu ñu def di ci diggante bi xam naa ci dara ndax dama doon liggéeyal sëñ Baara Dieng am benn bis ñu ne ma ah, yow sa sëñ bi ñëw fi doo ji may ah waaw dinaa ko siyaare waaye damaa amagul ndigal ba ma toogee bisu altine bi ma ko siyaare sëñ Baara Dieng waxuma ko ci saayir moo ma woo jox ma la may siyaare ni ma tey duñ dem fenn demal nga siyaare ko ba ma demee di ko siyaare mu ne soxna Jolof Dieng mii ci kër gi kilifa googu mooy mooy sëñ Cheikh Badara Diop doomi sëñ Baara Dieng dafa nekk moo tax wuyu téléphone ba ma yeggee la ma kër maam Cheikh Sa Dieng ak kër Cheikh Ibra Fall kër gi genn kër lañu du ñu ñaar ñu ñett ñi ma soxna Jolof mii doomi sëñ Baara Dieng noonu la ma waxee ba ma ñëwaatee déet lu ma de ba ma ñëwaatee waxatuma sëñ Baara ci boppam moo ma ne xanaa xamoo ni ba nga demoon kër gi genn kër gi xoolal ni niñ ma ma paasante ci diggante bi te waxuma je kenn te ñoom ñoo waxal seen bopp mu ne ma fa nga demoon ak fii genn kër gee kon loolu yëpp ak sant yàlla ji ñun magi taalibe ak yu mel noonu nañu bàyyi nit ñi fu ñu jëm ñu bàyyi li ñuy def ba ndax lañ fay wuti ma nga fa te suñ ko wutee ni ñu ko war a dinañ ko te mooy kër yu mag yi nga xam ni ñoom benn bopp lañu genn kër lañu foo ci dugg baax na foo ci dugg baax na ndax kër goo ci dem day mel ne seen gàcce si nga dem moo loolu ci sëñ Mbàkke Jeen mi tey ak sëñ Galas Jeen moom sëñ bi da leen a boole woon jox sëñ Abdu Xaadir donc ay sëñ Abdu Xaadir lañu fa la buuritoo ba ñu wàcce ko ñaanal ko indi ko fii am na ci loo xam ne nee naa du ma ci egg yegg ci wax ji waaw ci biir waaye xam naa ci lu bari boo demee sëñ Moustapha tey lam lay wax jenn wax ji boo demee ci sëñ Cheikh noonu boo demee ci sëñ Fallou mi boo demee ci sëñ Sidi moomee noo kasaalika naka noonu ñoom ñëpp ña nga xam ne ba ca sëñ Bas fan yëpp mi ngi mi nga xay tey mooy porte-parole fan yëpp mi ngi la ñu war faa dem te demaguñ fa doon doon na ko woo kon loolu yëpp lu ko yàlla dimbalee la lu ko yàlla defal la ak yéene ju sëñ naar jenn am ndax xam ni fi way juróom ñëwoon loola duma dama koy juntuwaaye du ma ci àgg xëy na dinañ ci mu sàgg waaye loolaa tax moom ba mu ba mu ko amee mu dem fa nga xam ni fa la nekk te ku ne xam ni sëñ Abdou Khadir rek sëriñ Fallou ni ñu demee ci sëñ Touba sëñ Fallou moom na am mu am ba mu am du am waaye sëñ Abdou Khadir loo mos a wax ci sëñ Fallou danaa wax ji farank laay na amatul luñ ciy teg noonu la ndax moom sëñ Fallou ñoo bokk sëñ Touba ba noppi ñoo bokk waajuru buso buso yi te buso buso yi ñoom ñooy lépp te ñoom meññ sëriñ Touba kenn mën leen cee génne te ku ne xam na ni kon sëñ Touba lu mu mën a am bu woon maam jaar buso du ko am kon bobo tam batay nit ñi dañ ci xaar te juma ji ku sant bu sama ko jité waaw kon daal lolu sëñ Fallu mo wax ni barabu mam Cheikh Sa jenn bi kep ku nelaw buñ la fi jaarale moy sa isaab kenn do topé duñ la sét directement jenn nga jëm muy barabu mam Cheikh Sa bi motax tax kilifa yi ñëpp ndax waxi sëñ Fallu te mom da xam ni noonu la démé lolu motax kep ku nelaw ñu fas yéene bëgg jaalé ci barabu mam Cheikh Sa jenn ñu top tool la fa ñaanal la fa ñu leen nga doora dem kon nak xamna ni bu ngeen amul leneen lu ngeen di eh, laaj euh, xam naa rek ndax wax ji moom du doy du jeex te da ngeen nekk ci ay yëngu ñoo ngi leen di santi